njabootug avocat yi Sénégal mel ni ñu seytaane gane si fan yi ak coowal Ousmane Sonko Adji Sarr observateur xëyee kalaame gi maître Dior Diagne kalaame jaare ko ci bataaxal ci kanamu ki leen bokk njaboote di bâtonnier ordre des avocats kalaame jëmee ci naatangoom maître Bamba Cissé ak maître Pape Samba Sow soxna si la ko metti di lanu ko njortal ne mooy ki bindal Adji saar moom Dior jaañ plainte bu mu teg ci ndoddal Ousmane Sonko ci kanamu section recherche gendarmerie bu Colobane maître Dior Diagne ci bataaxal bi di ci weddi bam set wicc waaye di ñaawlu na yooye naatango dox toxale di ciy gëtam ay fët ci seenu métier avocat observateur ne maître Dior jaañ nag ci mbir mi dàqul xalaatu yóbbu kalaame gi ci kanamu ngir ngiri daan moo waral mu sàkkuwaale ci bataaxal bi ab autorisation ci bâtonnier de l'ordre de avocats observateur ngir nag ak yamale ci wasaare xibaar gi bañ a bu benn nopp fexe na jot ci téléphone maître Bamba Cissé ak maître Papa Samba Sow waaye antuwul jotu leen ñoom avocat yi nag ci mbiri Ousmane Sonko Adji Sarr ak boor buñ ca mën a féete njiital ordre des avocats maître Pape Leyti Ndiaye béggul ci seen ab doxalin ndax ñàkk wàccoog ceelal ak yoonal gi seen métier laaj di génne nag ay xibaar yu ñeel enquête bi ca boobu fekk na dossier bi ne ba tey ci loxoy enquête kat yi daan di leen ci war a fekk nag yéenekaay bi wax na ca capitaine Touré moom bu gendarmerie nationale ndax dafa jalgati am déet wàlluk li nga xamante ne mooy yoonal gi métier laaj ne takk der ci vox populi jàng nañ ca ay njaaxalem yu mujj laata mu war a wuy ji ay kilifaam ma nga ca naan ci yéenekaay bi dara jotu ko mu ngeeg wér-gu-yaram gu mat sëkk waaye bàyyi jë ki ko yar moom daf ni déet dafa jàpp ne li kay liggéey rekk la wala capitaine Oumar Touré ñu fekk ko ci les échos mu ca xëy na dinaa dem kaso waaye jàpp leen ni ku bëgg réew mi la maa ngi ak sama sago ak wér gu mat sëkk ci li may wax yépp ci sago laa ko defee bàyyi ja Massiré Touré ne déet li kay du tayeef liggéey rek wala feebar les échos waxtaan ak ñenn ci kilifa ci li ko mën a fekk nag ci wayu doxalin major Kandji moom daf ko jàppe moom capitaine Touré un mauvais militaire militaire bu bon élément bu rax ci biir gendarmerie mu xam na risque ya ko ca mën a fekk moo waral doxalin wi maanaam di gaawantoo ko njëkkante génn rang yi commissaire Keita it noonee la gisee kuy jëlalee ngir génn ci mbir yàkku ngor mu ne li muy wax ci dossier bi dara amu ca le témoin ci gàttal dafa blaaj nag ci ndax moom capitaine Touré génie la wala ab dof rek ñu des ak le témoin mi gis ne ginnaaw fitna gi fi woon président Macky jëlaatal na boppam yëf ya ak i dogal démb alxamis tey ji ñu koy def deuil national ngir ab dëj ñeel ñi faatu teg ci oyofal jëmee ci askan wi ci dem ak dikk bi ci wàllu dundi nit naka noonu ak yëkkate gi mu fas yéene yëkkatee le 19 mars lépp président teg ca génne ñu ne ñetti téeméer ak juróom fukki milliards ci diirab ñetti si at ngir xëyu ndaw ñeeg seenuk suqaliku le soleil noo ne la waxee yéeni kaay bu an fësale ko moom président Sall ak dogal ya xaaj bu njëkk téeméer ak juróom fukki milliards ngir xëyum ndaw ñi ngir atum waaye xaaj beneen ñaari téeméeri milliards ngir mu mel nag ci wàllu dogal yi président de république du ci ndax la tribune nee na ma ngay xalaat ci yeesal ñeel gouvernement Sénégal ca xëtam bu njëkk ak wert ga mboq gaak xonq ba biddiw bi ca digg ba yéenekaay bi jàpp ne bakkan yi rot nag bari na lool Le Quotidien ne moo tax it ñoo nga ca dëjal ga ak jaalewante sunu biir naka noonu nag war a sargaal ñu làqu ci manifesté yi yooyu manifesté ak coxor gi métit yàq ak rey gi ko lal moo waral lii Quotidien xëy defab laaj ana li des ci image bu Sénégal wàllu wér-gu-yaram la ñuy jeexale ak yéenekaay bi Le Mandat ak bëccëgu tey gi ñu jagleel xeex beeg jàngoro yi roño ci bi moom la mu gis mooy Sénégal Sénégal dëgërul ci jéego yi ak tànk yi maanaam dañ cey daagu